boo xam ne mooy ligue des imams yu géejawaay yi nga xamee ñooy liggéey yëngutu ci mbirum kaso yi ki ci jiitu mooy al oustaz Balla Thiaw imam Balla Thiaw moom moo ci jiitu moo nekk nii toog sewet ah, ki ci topp mooy imam Alassane Diop ak al imam Moustapha Touré al imam Baye Touré al imam Latir mbay al imam moo Ndiir ñooñu ñooy délégation yi am na imam yoo xam ne fii ci Colobane lañ dëkk ki nga xamee ne ki nga xamee ne moo leen jiite mooy al imam Lamine Diouf moo nekk nii fii ci Colobane lay nekk ñoom imam yooyu ñoo ñëwoon tey ziyaara sila dalal la ci ngan gi nga xam ne ni moom ngay def ñii nag dañuy yëngut ci mbirum kaso yi di défendre li nga xamee ne mooy peine de mort nee nañ dañoo bëgg mu dellu siwaat imam <laughs> Balla Thiaw waaw imam Dame Ndiaye bisimilah kàddu yu gàtt après nga jox imam Balla bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. di la ziyaara. di la ndokkeel di ndokkeel jullit yi ci yow ñi ngi bëggee sa teewaay fii ci ndakaaru wax dëgg yàlla sa yoon wi xéewal dong la ngir jullit yi dëgg la am na taxawaay boo xam ne sa juddoo la ko may te mooy jiite gi nga jiite njabootu xaadimu rasul waaye am na taxawaay boo xam ne sa yitte ko may te mooy jiite gi nga jiite jullit ñi jullit ñëpp nangu nañ mbàkke nga nekk seen kilifa yàlla na yàgg yàlla na sax yàlla na ci yàlla defal ndam julli di kilifa dong nga leen manqué lépp lu ñu war a am pour dem ci kanam lépp lu ñu war a am pour ñu weg leen lépp lu ñu am war a am pour ñu def li ñu bëgg am nañ ko ba mu des kilifa Mbàkke yaay suñ kilifa jàppaleel julli di ci li manqué ci réew mi mu am fi mën na fee am julli di soxla nañ ko mbakke salaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ bi Mbacke ñi ngi lay ziar ci turu collectif des imams et bonne volonté sunu nag Mbacke ci njaboot gi lañ sunu yëngut yëpp mooy aw ci kaso yi jàng jàngale fexe ba ñooñu yàlla dogal nattu dal leen te amuñu ko leen taxawee ñun ñu jaayante yàlla depuis 2006 di ànd ak ñoom di liggéey fexe ba bu ñu génnee mën na am fu ñu féetewaat société bi loolu nag yàlla dafa nañ ci ndam depuis ay ati ati at fan yii nag dafa am coow lu am Mbacke muy fitna yi ñu dégg agression bi rey gi boobu yàggu rek ndaw soosu ñu fekk ci Pikine boom ko ci anam yu méttee méttee métti métti population bi nag Mbàkke jaaxle di jooytu rek ñu ne nag ñun comme ñu ngi ci kaso bi xam nañ leen jéem a yenn combat bi bu ñu yendoo combat bi balaa ñoo def dara dem ci kilifa yi Mbàkke dem nañ Kaolack ci xalifa général bi jaar Touba fekk yaa ngi Ndakaaru ñu dem Kokki dem Louga ci Thierno Bachir dem fépp ba Tiwaawan sëñ euh, Njool Fuuta dalal ñu dem fu ne Tiwaawan Njaasaan fépp bi ñu yégee yaa ngi fi nekk ñu nañ fexe ba sëñ balaa dem Mbàkke recevoir ñu ñaanam ak conseil am liñ bëgg daal mooy peine de mort bi Mbàkke dellusiwaat lay waat da ko fi jëlee woon 2004 biñ ci boomee Moustapha Lo ak ka booboon euh, waaj ka nekkoon dem ba Diop ñaaraatul peine boobu nag laay ko fi jëloon 2004 Mbàkke xeexuñu xulóow liñ bëgg daal mooy nañu ko delloo si rek ba ko rey ñu rey la te loolu bu amee njaboot gi am jàmm njaboot gi Mbàkke sonn nañ jaaxle nañ tiit nañ lool daal mooy suñuy tànk def nañ ay pétition liggéey boobu ñi ngi ci te incha allah taala ñu ci toll da ko yëg loolu daal mooy suñu tànk Mbàkke nga def ci ñaan ñi ngi am contact ñaan yàlla yàlla dëgëral la taxawaay bi gis nag sa coono yàlla bu mu nen incha allah taala. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee na mi ngi amati mbégte mu rëy a rëy. mu ne ci kilifa yi imam yi nekk ci kanamam. mu ne mi ngi gën a sant suñu borom bu baax a baax mu ne la ca jiitu mooy sant leen ci seen taxawaay mu ne ndax loolu mooy li jiitu ci diine ji mu ne mu ne ndax seen taxawaay ñëpp a ko bokk nee na mi ngi leen ciy sant bu baax a baax mu ne di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax mu ne dégg nañ kàddu itam mu ne dégg na ko bu baax a baax. mu ne incha allahu yàlla boole nañ ci xol yi mu ne lépp luñ ci man seen gën kàttal ànd koog yéen mu ne dana ko def incha allah mu ne mi ngi leen di sant di gën a gën a gërëm bu baax a baax mu ne xolam sedd na ci taxawaay bi mu ne yaakaar mi dolleeku na mu ne gën na cee dal mu jërë ngeen jëf. mu ne na ngeen xam ne kenn ku am yéene jox ko benn loxo mi ngi am yéene jox ko ñaari loxo na ngeen xam loolu incha allah mu ne boole ko ak jëmmam léppam rek mu ne ak xol bi ak xel mi. mu ne loolu yëpp daf koy fas yéene feddali ay laxasaayam ànd koog yéen fas yéene liggéey lislaam suñ kéem kàttan mu ne sëñ Touba ci loolu rek la nekkoon mu ne bi ko gisee ba mi ngi ko noppee gis mu ne ci liggéey lislaam rek la nekkoon mu ne loolu nag moom la ñu fi bàyyil mu ne danañ ko def suñ kéem kàttan mu ne def ci suñu lépp fas yéene gën a ànd ak yéen gën a liggéey lislaam mu ne loolu rek moo fi ne moo leen fi nekkal itam yéen na ñëpp tàllal seen loxo bisimilah.